góor yàlla dafa am nag jukki bu mu génnee ci sëriñ fallu war koo waxtaane su ko defee nun ñëpp nu àndandoo déglu ko rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante sunu borom julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yëkkati sunu kàddu ci ci ndigalul Serigne Ahmad Al Badawi mi nga xam ne mooy coordonné mbooleem yëngatu yi ñuy def ci màggal bi mbooleem liggéey yi ci màggal gi moom sëñ Ahmadou moo koy coordonné waaye nag da koy lëkkale ci ndigalul sunu kilifa ñun ñëpp muy Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne kàddu kër Cheikh Mouhamadul Fadil ak bisub màggal gii lépp mu ngi ci loxoom nga xam ne Cheikh Mouhamadul mustafa moom Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko tegoon ci loxoom mu liggéeyal ko ba làq ci ngërëmam Cheikh Mouhamadul Lamine ñëw yeesal ko lépp lu mu doon jëf koo yokku ba làq ngërëmam cheikh abul baraka yit bi mu toogee dafa yeesal kóoluteem ci cheikh abdul fatah kon dañuy ñaanal sëriñ abdul fatah sunu borom gën koo sàmm may ko wér te guddal aw fanam moog nag ñu ko séqal muy sëriñ mu mouhamadul bachir bi nga xam ne mooy jëwriñi sëriñ abo ak sëriñ Mortada mi nga xam ne mooy Baye Fallou sëñ fàllu ak mbooleem njaboot ak soppe sëriñ Fallou daayira yi soppe sëñ Fallou yëpp nag taxaw nañ ci bis bi daayira daayira yi sët yi taxaw nañ ci bis bi bokk yi taxaw nañ ci bis bi kër diine yëpp taxaw nañ ci bis bi taskati xabaar yi tam taxaw nañ ci bis bi waa bitim réew kenn du ñoom taxaw nañ ci bis bi sëñ daara yi nag li ñu jàng ci alquran ak xasida ak julli ci yonent bi ak tudd yàlla te jëfe ko yéene ak sellal ay junni junni kaamil la kenn mënu koo lim mën naa defar waxuma la Sénégal waaye mën naa defar àdduna kon lépp luñ ci yéene yàlla na ko yàlla nangu fédération ahlul xasida ñoom itam fii lañu fanaan biig sëñ mu Mouhamadou Mbaye mi ànd ak ñoom ñu def nañu daan def ñoom itam sëriñ bi gërëm na leen sant na leen ak sëriñ Moustapha Xumma xam ngeen ni sëriñ sëriñ Alxaaji Mbàkke Jaxate ba rajab teraw ba fi mu ne dafa takk der ci ndigg li nee na feeg rajab jeexul du ko tekki loolu lépp ay taxawaay la ak i pas-pas yu mat a leeral sëñ abul baraka nag dañu koy ñaanal yàlla na fi yàgg sëñ abul ku ne xam na ne jumaa jee mu liggéey ca ndakaaru nga xam ne romb na milliard di dem te kenn mësta dégg mu woote kenn mësta dégg mu laaj loolu jàmbaar moo koy def jàmbaar mooy song loo xam ne ñëpp dañ naan du ko man du ko man ba mu xëy daan ko ne cell jàpp ak njaamuram nangu kilifteef bi ñuy tabax jumaay Masaalikul Jinaan ca Ndakaaru daanaka dafa taxawal liggéeyub jumaa ja ndax sëriñ bi di liggéeyal sëñ Tuubaa muy liggéey ci wet ga donte lépp sëñ Tuubaa ko moom woromaam da ko koo mayu moo tax mu doon taaxirlu ba ba Masaalik noppi nag mu door a song jumaa ja ba fii mu ne noppi na di ko noppi di ko jaambure waaye nag di ko am fulla di ko mën alquran nag yàlla na ko yàlla sàmm mbokk yi xam ngeen ne sunu borom dafa wax ci alquranul karim ne inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal ard minha xurum yàlla nee na fukk lañu ak ñaar waaye sàkk naa ci ñeenti weer yoo xam ne dañu leen di warumaal dañu leen di waggar te mooy ndeyu koor ak diggu tabaski ak tabaski ak am xarit weeru koor moom dañ ko jëlale waaye weer yi day weer yoo xam ne ba lislaam ñëwagul sax ceddu yi bu ñu daan xare ba weer yi ñëw dañuy weer seeni gànnaay sunu borom nag teg ca na fal fii fala am tazlimu fihinna anfusakum weere yooyu ma wormaal bu leen ci tooñ seen bopp tooñ sa bopp mooy lan soo tooñee tooñee yàlla dangaa tooñ sa bopp boo tooñee sa moroomam jaam dangaa tooñ sa bopp kon liñ ciy jànge mooy nit ki war nay moytu tooñ boroomam ak tooñ moroomam rawatina rawatina ci jamono ju ñu wormaal xam ngeen tooñ yàlla fu ne fu ne la bone waaye dem ba màkk fa la yéese xam ngeen tooñ yàlla ci jamono ju ne la bone waaye bàyyi ba koor ngay tooñ ca la yéese kon dafa am jamono yoo xam ne ak barab yoo xam ne sunu sunu sunu borom moo ko wormaal weeru rajab wii nag di ndeyu koor nag ca la rañaane woon moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge màkka dem baytul maqdis jibril moo ko woosi andi alburaax ñi naan ba muy rañaan nag róoga dong moo dem jëmmu ja demul man di dama xamul agro nu muy ware aw fas wala muy war daamar kon jëmm ja moo demoon ba mu demee baytul maqdis fekk fa mboolem ñi yàlla mosa yónni ñu sàppe mu jiite leen julli fekk na at mooma nag da caa am ñaari naqar ba bàyyi ta xam Abu Taalib mi ko doon ñag di ko sàmm ba kenn du ko laal dafa génn àdduna miisa gu ko soxnaam xadijatu soxna xadijatu yàlla na ko yàlla doole xéewal génn àdduna muy at mu metti ci moom ñu koy reetaan nag yàlla dàmpe ko naqar woowee mu jóge baytul maqdis mu jóge màkk dem baytul maqdis jiite mboolem ku yàlla yónni moom la sëriñ bi naan la anta imaamu rusli qad jaa annahum talaaqawka fi l israai qad salla mu jiite leen julli ba sëlmal nag doora yéeg ca kaw dem ba àgg foo xam ne mbindéef musu faa àgg sunu borom wax ko fa loo xam ne musu ko musu koo wax nit fa awxa ila abdihi ma awxa wan ko fa xam nit mësu koo gis laqad laqad raa min ayati rabbihil kubra mu ñibbisi ca guddi gi nag bi mu xëyee nag la nettali ne dama demoon biig baytul maqdis yéefar yi di reetaan di xalangu di kekku jàpp ne loolu mënta am mu ne moo ne yow jàll naa de jàll naa ba ca kaw ba déeyaale ak sunu borom ñu ne abu Aboubacar mi nga xam ne luñ ko wax mu ne wax na dëgg de su déggee lii dana xam ne lii moom mëne soo ko gëm ñu bari dañoo tubbi bàyyi lislaam waaye Aboubacar ba mu ñëwee bañ ko ko waxee mu ne kii lu mu wax dëgg la keroog la am martaba as-siddiq damay faral di wax ne Cheikh Moustapha Moustapha ko wax nee na Cheikhul Khadim lim ma wax ma teg ci sama bët li ma wax te tegaguma ci sama bët moom laa gën a gëm loolu mooy as-siddiq rañaan moomee nag la Sëriñ Tuubaa nettali fu ne ci ay téeréem mi ngi naan qad xaaza faxra min xiina asra bil jismi jahara bil iftirai akrim bi rabbi asra bi xibbi laylan li qurbi ma al sura amini muy yonent bi ma amini muy jibril fawqa amini muy alburaax lil asfiyaai mu fekk ña yàlla yónni woon qad qaddamuuhu id waajahuuhu waxtaramuuhu zawi naqaa'i wa saada fihim wa baana anhum nag wa siina anhum mu ne meng ci kaw baada irtiqaa'i qad aaba laylaa qad sabba naylaa li mu àndaale ci xéewal qad faaqa saylaa moo gën a bari waame moo gën a bari taw min zil baqaa'i xajjaa bi may mu àndaaleb sérike nag muy julli juróom ñu ngi ko jox li ahlil xayri wa bi bi dayri ahlu shaqaa'i xasida goo dem ci xasida yu yu mu koy tàgge ma ngi cay nettali rañaan ma ma mu rañaanoon moom ma alayhi salaatu wasalaam muy sag boo xam ne moo ko mos a am muy teraanga joo xam ne moo moo ko mos a am moo tax ñu baax ñépp dañ koo nangu ni ko yàlla def te ku baax rek mooy xam ku baax shahida kullu sayidin yuxtaaru bi anna ahmada huwa almuxtaar weeru rajab bii mu rañaane woon nag ci guddi bii gii mu rañaane woon ci la sunu jàmbaar ji muy cheikhuna muhammadun il fadil gane àdduna ci daaru salaam bi mu feeñee sëriñ bu soo bi yónni sëriñ Daam Abdourahman ne ko demal Touba booba ñi ngi sanc Touba te noppeeguñ wax wax sëriñ bi ba mu ko ko waxee mu ne ko boo demee ne sëriñ bu soobe su bis bi jël say na ko tuddee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu koy dàkkentale alfaadil sëñ bu soobe tudd ko looloo indi pour turu Muhammadunil Faadil mu ne ci keppaaruk sëriñ bi ba mata dal jàng benn bis la ko sëriñ bi woolu mook Cheikh Moustapha al Karim ak Serigne Omar Gelongal ca kër Serigne Chouaïbou ñu ko daan woore Daaru Rahman ci ron garabu dimbu dimbu nga xaw ma ba tey ma nga fa wala nekkatu fa waaye ca ron garab googee fa la ñu dalee jàng ci loxol Cheikhuna Amadou Khadim mu dalal leen di leen jàngalal boppam ko di leen jàngal di leen jàngal ba dem Mbàkke Baari jot mu ànd ak ñoom dem Mbàkke Baari di leen jàngal xam ngeen ne yàggu fa ñeenti weer dafa def ak i fan tukki bi jot mu génn nag këram fab njaboot gi dénk leen borom daarul Muxti borom daaru ànd ak mag ña nag taxawu yoon wi taxawu njabootu sëriñ bi daaru moom i sëñ bi ne ko woon soo mënee dëkk ak ñoom Tuubaa def ko soo ko mënul nag fu soob yàlla na nga fa dëkk ak ñoom ñu tere ko dëkk Touba ndax tubaab bi da ko doon tere ca la demee nag Mbàkke ca wetu Mbàkke guy ngooraa sañc fa nekk fa ak njabootu sëriñ bi waaye saa bu sancee kër ga day lakk bu sancee kër ga day lakk xamee suut nag nit moo koy def noon moo koy def wala day coobari sunu borom rek suñ mu saake nee na at mu taxaw mu sanc kër ga lakkaat xaw ma nu mu ko waxeeti waaye daal at mu jot mu sanc kër ga mu lakk maam Thierno defaraat sëriñ xalil Mbàkke moom sëñ Moustapha Absa nee na ma dégg na ci làmmiñu sëriñ Saaliw yàlla na ko yàlla dolli xéewal mu ne Baye Thierno dey bi ko sëriñ bi dénkee njaboot gi sonn na ci coono boo xam ne mën mëni su ko xalaat da doon ànd ak ñoom di doñ doñ bu sañcee mu lakk xamut nu mu leen di def ba am na guddi goo xam ne njabootu sëriñ bépp maam Thierno xamut fu mu leen di dugal ñu fanaan fa waaye am sàq ci am sàq la dugal njabootu sëriñ Tuubaa gi ndax ñàkk fu ñu fanaan ndax tumuraanke kon mag ñooñu nga xam ne dañoo taxawoon démb téye mba mbaarum sëriñ bi jën yi ñoo ko téye woon suñ mu sàkkee nee na mbaarum sëriñ bi ñoo ca roof jënam ya kon mag ñooñu jar nañu njukkal jar nañuy fàttali ko bi sëriñ bi demee nag maam Thierno nag uuf leen di leen jàngal xam-xam sëñ daan di leen jàngal alquran juróom-ñetti at ci la sëñ Fallou wattu naar ba nee na ko qad axada alqurana fi samaani an al imaami aabidi rahmaani kon juróom-ñetti at ci la wattu alquran ba mu wattoo nag mu dal xam-xam ci maam Thierno mu koy jàngal xam-xam ñi ko séqoon muy baagante seen diggante booba ku leen raw amul ci réew mi muy maam Thierno maam Mor Diarra ak Serigne Bakki Bousso muy baagante ci seen diggante ba jële ci ñoom loo xam ne sëñ Makhtar Mbacke maam Mor Diarra nee na taallama inda ahmada jaara baadu ila an saara bahran fi l kon jàng na ci maam Mor ba doon géej naar ba nee na tam wa axtal ilma bu ayda ammihi an xaalihi axil batuuli ummihi nee na tam jàng na ci sëriñ bu Buso ba àgg foo xam ne mëni su ko weesu bi sëriñ bi ñibbisee nag ci géej gi xam ngeen ni yàggu fi ay weer yu néew la fi def ñu yóbbu ko gànnaar dafa woolu nag Cheikh Mouhamadul Fadil ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ak ñañu maaseeloon ci ay at yóbbu leen gànnaar gànnaar nag fa fa bi jànkonte ak ñoom tarbiyee leen tarxiyee leen gànnaar metti lool amul lekk amul naan amul dëkkuwaay ak tàngooroo bu tàngoor jotee mu metti lool bu sedd jotee mu metti lool ñu nekk fa ak moom ñeenti at sëriñ bi soog faa jóge dem ci yéen jolof àndaat ak ñoom def fa juróomi at kon wàññal tërbiyeenu da leen tërëbe yi ñeenti at ci gànnaar tërëbe yi leen juróomi at ca jolof mu juróom-ñeenti at te des na jolof nag fa la jaayantee ak moom jaayante ku siiw ga ñëpp xam jolof nag fa la sëriñ bi taxawal leen kër ñu ñu taxawal kër ñoom ñaar Cheikh Moustapha ak sëñ Fall sëriñ bi boole ñaar ñu bokk ndey ak baay jox ci seex Moustapha jox ci sëñ Fall ñu jiitu ci seen kër mu soog a jóge nag jolof ñëw nag njaareem am faak ñoom menn at muy fukki at lañ tërbiyewu mu soog leen a nag wàcce jox leen ndigal ñu sanc Cheikh Moustapha dem tindoodi gi ngeen xam sëñ Massamba dem Daarul Karim sëñ falu dem ndind gi ngeen xam kon dañoo jàng ba ne ar nam ko waxee woon dama jël la baagante bi mu doon baagante ci way juróom yooyu waaye gànnaar rek lam fa jànkoonteek ay borom xam-xam naar moo tax soo làkk naa arab dangay ngay defee ne ab araab mooy làkk buy làkk alxasaaniya muy naaru gànnaar da ngay defee ne naar mooy làkk man am naar bu ma wax ne bu ma wax ne ma mi ngi tudd Abdoulahi mun alxasani nee na sëriñ Fallou li ngeen di wax ci wolof kàll kàll sax mën na ko def ci naar mën naa kàll ci naar mën naa léeb ci naar lu ñuy wax ci wolof mën na ko ci naar sëriñ bi nag soog leen a digal ñu sanc ba ñu sañcee nag lan moo doon seenu liggéey mbooloo ma ñu àndal ñu ànd ak ñoom di liggéey te lu ñu liggéey yóbbul ko sëriñ bi lu ñu liggéey yóbbul ko sëriñ bi te da ci boole ab kaamil téere bii ma leen di bëgg bëgg wan ci kanam gis naa ci ne alxaaji Mouhamadul Mahamoud ñan yàlla na ko yàlla dolli xéewal fa mu nekk nee na sëñ Fallou nee na ko bindal naa Serigne Touba ñeent fukki kaamil ñeent fukki kaamil kon muy liggéey di ko jox di bind di ko jox moom nag ni ko sëriñ Bassirou Abdou Khadre waxe léegi dafa bëggoon Serigne Touba te nit li mu bëgg képp suy jariñu ca loolu lay jariñ li nga bëggul loo ci mën a jariñ te bëgg Sëriñ Tuubaa nag muy bëgg sa bopp dafa am ci saxaaba yi ku ñëwoon ci ngën ji mbindéef ne ko kañ la àdduna di tukki mu ne ko ndax dangaa amub yóbbal mu ne ko aw awmab yóbbal de waaye li ma def muy sama yóbbal mooy bëgg naa yàlla te bëgg naa la mu ne ko nag ay soppe du ñu tàggoo ay soppe du ñu tàggoo loolu mooy ëllëg fu ma dëkk da nga dëkk ak man anas mi ko nettali nee na bisu keroog bég nañu bég moo xam ne mosuñu ko bég anas nee na man de jàpp naa ne kon danaa texee ndax bëgg naa yàlla bëgg naa yonent bi bëgg naa Babacar bëgg naa Omar te dana ko anta maa maa man ahbabta sëñ Fall nag bëggoon Sëriñ Tuubaa bëggal koo xam ne amu ci sago mu gënal ko boppam tax na ba njabootu Sëriñ Tuubaa gépp mu def leen doomi sëriñ ñu gënal ko boppam dafa mel ni ku leen ragal da leen di waggar ba mel ni ku leen ragal kon loola war naa del war naa dellu sopp leen lool mag ñi àndoon sëriñ bi tam xam ne la na ci ñoom sëriñ ko ca def da bëgg ba mel ni ku leen ragal ndax li nekk ci ñoom tax xam sëriñ bee ko def te sëriñ bi moo moo jëkk a mel noonu mahad mahabatiyel muxtaara sayidana xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada moom it nag na sëriñ bi def ngeen ji mi def mu def ko sëriñ bi bëgg ko lool moom la ko yàlla fayee nag xool yi bindeef yii nga xam ne amuñu sago ci moom yàlla moo mën a fay sëriñ Fallu ab tab la woon boo xam ne li daan jaar ci loxoom ci wërsëg kenn xamul nu mu toll te bi muy dem bàyyiwu fi dara bi muy dem bàyyiwu fi dara te lépp da ko defaat ci jaami yàlla yi ñi ngi wax ne ba ñuy toppatoo ginnaawam la fa ne doy waar gu mu doy am na ca mag ña ku wax njabootu sëñ Fallou ne leen xool leen jumaa ji xool leen jumaa ji lu ngeen amul ci seen bàyyi na ngeen xam ne fee la ko def kon yéen xool leen jumaa ji ndax ci néegum ñax ci la dund dundam gépp ci néegum ñax la wàccub liggéey te def jumaa ji mu mel ni mu mel kon nag njabootam sañ nañoo xool jumaa ji te alaaji daam daraame nee na li ci sëñ lu def kenn defu ko ci woote na nag ñëpp ñëw laaj ñu joxe waaye lim def ci jumaa ji kenn defu ko ci kon kooku mooy ab topp am na naar bu ko way ne ko law jaa law jaa'ahu almuxtaaju yowma xisaabihi la anaalahu la anaalahu l maqbula min amalihi nee na bu ñu demee ba bis ba yàlla fay jaam ñi kenn ku ne mu fay la ba nga yor sak fay nee na sëñ Fallou foofee la ko yàlla fay ku ñëw ne ko may ma ci mu may la ci kon attaque foofu lu mën a yem waaye sëñ Fallou ni mu wane woon ginnaaw àdduna amu ci woon soxla moo tax bàyyiwu fi dara suñ tubaa dane woon kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamcu fiddatin walaa jamcu dahab man samam samam koom mooy tasaare diine yàlla ci muy alquran ak xadiis sëñ Fallou nag xam na ne loola mooy am koom tax na mu wan ginnaaw àdduna ca na muy soloo ca fa dëkk ca ñàkk ci dara am na naar bu fi mësa ñëw bu tudd Muhammad Tawfiq Uwayda Jamal Abdul Nasir moo ko yónni woon bi mu ñëwee ba dugg ba toog ak sëriñ bi mu ne ko Cheikh Mouhamadul Fadil laay laay laaj xalifatul muridin mu ne ko moom nga jàkkaar loo nii di di wax ak moom de mu ne ko yow kay doo xalifatul murid muridin waaye yow yaay xalifatul muslimin ndax na mu ko doon séentoo ci ak col ak i kaala yu rëy ak i mbaxana yu rëy ak ni mu ko fekk moo ko bett mu ne ko anta xalifatul muslimin sëñ sëñ Fallou dafa yërëmoon jaami yàlla yi nu mu leen yërëme woon mooy lu ko nit def mu jéllale bu dee lu ne fàng lu ñëpp xam tam mu jéggale dafa yërëmoon jaam ñi ba nangu ñu di ko nax mu di ko xam dégg ngeen xissa boobu nga xam ne sëñ Babacar Si Mansour mi koy nettali ki nga xam ne alxames ju jot mu ñëw ne ko sama soxna dafa am doom alxames ju jot soxnaam am doom te bu ñëwee bu ñëwee su ko waxee mu jox kon dañ ko doon nax mu di ko xam yërëm bindeef yi di ñaan yàlla mu xet li bindeef li gayrika la nashku ilaha alwara amra yaa ayuha nnaasu inna nnaasa kullahumu qad saa xaaluhumu wastadda xawfuhumu doonoon ko am jàmm di di kaf ak di ree boo ñëwee ak foo mën a bawoo dangay mel ni ku bokk ci njabootam moo tax mu daan wax ne man may Sénégal Sénégal li fi nekk ci ay xeet yu bokkul ay làkk yu bokkut ay waaso yu bokkut diine yu bokkut mu mën a xajoo ñépp moo tax ma ne man may Sénégal ak jaamu yàlla nag moom waxtaane jaamu yàlla ak doomi Sëñ Tuubaa moom loolu sax ak moom ku ko def dañuy ree waaye sëñ Afe ña nettali na ne mag nee na ko am nay jamono sëñ Fallu téeméeri rakka lay naafila guddi loolu nag xel nangu na ko ndax dafa yàgg ci loxol Maamoor Jaara boroom saa mi ko daan def moo daan jiite ajjuma di jiite iit su weeri feeñee mooy jiite euh, gee bis bu jëkk ba bu ñu umee koor day wax ne nañu day wax ci rajo bi ne ndigal li agsi na na ko ñëpp jëfe képp ku mën a boole woor ak liggéey na ko boole képp koo xam ne mënoo koo boole bàyyil liggéey ba tey woor képp koo xam ne soo liggéeyul doo am loo doge ñëwal ma jox la looy doge ba weer wi jeex moo njëkk a santaane sëñ bi neenu na nañ séentu weer ku ci xam lu leer na ko wax moo njëkk santaane sëriñ bi nee na suba bisu koor ku mën na ko wax teral bindee fii nag ba nga xam ne doomu aadama kenn du ko jënd waaye soo ko terale yaa ko moom nag ahsin ila nnaasi tastaabid qulubahumu fa taalama staabada al insaana ihsaana doomu adama soo ko terale yaa ko moom li mu tabax ci jumaa li mu tabax ci daara li mu tabax ci ay kër li mu dimbale ñuy sàkku xam-xam yóbbu leen bitim réew li mu yóbbu màkk ci mbooloo Ahmad Bachir Kounta yàlla ko yàlla gërëm nee na mos naa ñëw mu waajal ko ne ko demal màkka nee na ma dem dem dem loola loola mujj seey mu ñëw ne ko loola dafa laatu mu joxaat ma demal ne ma demal màkk kon li mu yóbbu màkka kenn xamul nu mu toll li mu gas ci ay teen biñ ko mayee ñaari forage forage 1947 mu def benn bi Touba benn ba mu jox ko maam Ceerno Birahim ci Daaru Muxti jox ko sëñ Moodu Awa Balla lu mu bay jox sëñ Touba di bind di ko jox la mu naaloon mu mottali ko dem na Màkka tabaxal na ko jumaa defal na ko daara ci biir jumaa ji muy daara sëñ Touba muy daarul maarif daarul maarif am na doom ndax am na jeneen daara ci biir kër gi ci mbaarum sëñ Aliou Fall daaru Maarif am na sët ndax am na jeneen daara ca nit ñi ci kër sëñ Fallu kon loolu lépp liggéeyu sëñ Fallu la koo xam ne njabootam ñoo ko mottali ci ginnaawam def marché occas nag tibu suuf ñaan ca ne nañ ko fa yóbbu ku bëgg dara na fa dem ku bëgg ku bëgg am dara rek na fa na fa dem moo tax marché occas barkeel marché occas nit ñi téye ko ak seen fukki loxo marché Ocass li ma ci gën a yéem nag mooy benn place boo xam ne dañ ne doomi sëñ Fallu moo ko moom amul marché Ocass benn place bu moom amul marché Ocass màggal gi màggal su amutoon murid di fu ñu jëm suñ màgg bu ñu doon màggal fu ñu jëm digganteem ak njabootu sëñ Tuubaa nag xajul ci waxtu muy Cheikh Moustapha magam ak ay rakkam nag digganteem ak bokki Serigne Touba xajul ci waxtu digganteem ak Cheikh yi Serigne Touba yi xajul ci waxtu waaye dama dama ciy jukki ne Cheikh Moustapha képp tëj na digganteem ak Cheikh Moustapha ñoo defandoo lépp lépp ñoo ko defandoo sëñ Abdou Karim mi taawu sëñ Fallou bi mu waree taxawal kër Cheikh Moustapha moo ko jox ab jarbaatam muy soxna Mariama Sëy soxna Mariama ak Cheikh Moustapha si na ndayu bokk nday ak baay mu jox ko sëñ Fallou mu jox ko sëñ Fallou sëñ Fallou am ci sëñ Abdul Karim kon taawub sëñ Fallou jarbaatub Cheikh Moustapha la sëñ ba matee taxawal kër Cheikh Moustapha jox ko soxna Xadi Fatma moo jëkk ci këram sëñ Cheikh Gaynde Fatma ba matee taxawal kër sëñ Fallou jox ko jarbaatam soxna mbenn sil ndax xam ngeen ne taawu Cheikh Moustapha euh, taawu Cheikh sëñ Cheikh Gaynde Fatma mi ngi tuddoon Cheikh Mamadou Fadil ndax xam ngeen ko taawu Gaynde Fatma mi ngi tuddoon Mouhamadou Fadil sëñ Fallou am doom mu tuddi ko soxna Fatma yaay Serigne Cheikh mu màgg mu jox ko Serigne Cheikh jël soxna waalo doomam jox ko sëñ moodu Baara ndax xam na ne moom sëñ Baara ñoo bokk ndey ndax xam ngeen ne soxna Mariama Kunta moo doon jigéenu Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha moom lu tuddee ab taaw muy soxna Mariama waaye ndax xam ngeen ne soxna benn fàllu moo doon jigéenu sëñ Cheikh Fatma su ne nopp moo génneet néeg sëñ Mbàkke ak sëñ Abdou Fatah ndax xam ngeen ne ginnaaw Cheikh Moustapha ba mu wujjee sunu borom ndax xam ngeen ne soxna Faatma dañ koy dénk sëñ Fàllu moo ko dëkkoo 45 ba 65 ñaar fukki at ndax xam ngeen loolu yooyu nag li tax ñu koy indi mag ñi xam nañu ko ak kilifa yi waaye gone yi bokk ci njaboot gi dañ ko war a xam ndax ñu bàyyi xel wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf waxtu wi dafa jege. li may li rek mooy téere bi li ngi tudd Hadaaiqul Fadaa'il. fii siiratu Cheikh Mouhamadul Fadl sëti sëñ Fallou yi ñoo ko taalif ñoo ko dajale def ci jaar-jaare sëñ Fallou ay wayam weesaram ak liñ ko way ak lim jëflanteeg àdduna téere bi daanaka bàyyiwul dara boo dee gëstu bu la neexee ubbi téere bi rek di jukki di bind am na beneen boo xam ne dañ ko móol mi ngi ñëw agseegul Sénégal bii moom agsi na lim bi ak bëriwut kilifa yi rek lañ koy jox waaye bu tasaaroo nag danañ ko siiwal am na beneen bu tudd nag chawahidu bad baadul afadil fi manaqibi cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne sëñ maam morom sëñ Fallu yàlla na ko yàlla dolli ngërëm moo ko dajale woon moo ko bindoon moo itam njabootam ci njiitu sëriñ Moustapha ñoo ko dajale ñoo ko móol ci bitim réew ba mi ngi ñëw Sénégal moom it bàyyiwul dara ci jaar-jaari sëñ Fallu